di ñaanal sëriñ Ahmadul Muxtaar Mbacke xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha mu yàgg fi lool ci ànd ak wér mbokk yi su ngeen gisee jotaay bi ci bërëb bi ak waxtu wi ci kenn ci njaboot ak Seexul Xaddim gi nga xam ni dañoo ànd ak sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul ba làq ngërmam ngeen xam ni ñoo ngi ci wàccaay bisu mag bis bi nga xamante ne mooy bisu isriina Muharram di bés bi Seexul Xaddim fanaan woon ci dëkkam bu sell bi nga xam ni moo di Tubaa looloo tax sëñ Ousmane Mbacke sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ni moo jiite diwaanul Mouridina ak mbooleem waa diwaanul Mouridina yëpp lëkkale mbooleem bunti kër yi Cheikh Mouhamadul Moustapha yi ren nag ñu tànnoon ñenn ci njaboot ak Serigne Touba gi tànn itam ñenn ci cheikh si tànn itam ci ñenn ci ay waxtaankat yoo xamante ni dañuy waajal bis bu am solo boobu nga xamante ni mooy fanaan seeg seexul xaddiim ci dëkk bu sell bi nga xam mooy Touba. looloo tax ñu ñëw teew ci boo xamante ni. ëtt bu ñu màndargaal la ci taalibe ëtt bu ñu màndargaal itam ci xam-xam waaye itam ëtt bu ñu màndargaal la ci toppe waaye itam goo xamante ni seen lépp jox nañ ko naa Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasuul jox ko Seex Muhammadul Mustafa al Karim muy kër Baay Sëriñ Jaw Mansour yaakaar naa suñ ko waxee rek dana junju ni kon fas yéene ànd ak ki nga xamante ni mooy sëñ Seex Anta Jaw mi nga xam ni moom lañ fas yéene njëkk a kàddu gi jox ko ko moo ñuy leeralal diggante Cheikh Mouhamadul Moustapha ak jëmm ju sell ji nga xamante ni moo di bàyyi sëriñ Diaw Mansour suñu paree itam den jébal kàddu gi nga xam ni moo di sëriñ Ahmadou jaw sëriñ axmadu nag moo ñuy leeralal wàccaayu bës bi fii ci kër gi nan lañ koy defee ak soññee bi nga xam ne dana ko def jëme ko ci mbokki taalibe yi kon sëriñ Cheikh Anta ñu jox la kàddu gi rek diggante kilifa yu tedd yooyu nga xamante ni moom la ñu wax seen diggante ak nan lañu àndee woon seen àndin gu rafet gi ba tey jii njaboot gi ànd di liggéeyal Seexul ginnaaw bu ñu dogalee ngaa dama noppi noo ngi nuyu sëñ Amadou Mokhtar mi nga xam ne mooy jëmmi Cheikh Moustapha ci kaw suuf di nuyu mboolem ay doom ak i rakkam ñëpp bàyyiwuñ kenn di leen sant baax di leen gërëm gannaaw loolu nag ñu xam ne Cheikh Moustapha day man nañ le mom la bay si jëw jëk top mhm. ndax bi bi ku bax ki di jëgé boba amagut lu mat fukiat kon man nañ ne Cheikh moussa la jëgë top mom la jëk liggéeyal mhm. euh, liggéeyal nak nag liggéey yu bare bare yo xamné amna am ci rek yenn yo xamné dañ ko tuddu mhm. euh, ndax xatu jotaay bi ak ni mu démé wax nañ ne bi nga xamee ne waay juróom wa làqu na te rakkam ja yoroon ko ñu koy wax sëñ Sayar Jaw kooka mën nañ ne moo ko jàngal moo ko yar moo ko tarbiya moo ko defal lépp kero bi nga xamee ne nelaw na moom itam ku ñuy wax sëriñ Yusufa Sall moo leen saytu woon waaye moom itam yàggu dara mu neloo waaye suñ jow toll ci at yu néew wax nañ ne bañ ko waxee Cheikh Moustapha andi ko ca moom ne ko kii day mooy doomi Mansour Diaw ji mu fi bàyyi gannaaw ñaari magam yee mu doon xale bu ndaw mun laaj ñoo ñu ne ko suñu sal de moom wàccanu liggéey dégg naa mu jalu ko lool loolu di bànqaas bu mag la bu fàq daal di wax ne jël loxoom bu tedd ba teg ko ci bopp Baye Serigne Diaw daal di ndax yàlla rus nu ci kii loola tax na mën nañ ne mboolem ñi ko fi jiitoon ñépp moo leen fi gën a yàgg euh, ba ko ñaareel ak fonkam Cheikh Moustapha fonk nga fokkee di wax nañ ne am na benn bi su mu dem fa booba war fas fas la waroon ba mu àggee Euh, sëñ bi ñu wax sëñ bi Fall ma fàtti turam moo ko dalal moo dalal Baye Sëñ Jaw ñu ne léegi kenn ku ne bu reejote da ngay indi sa ndab ñu tibal gan ga fa ne keroog bañ indee gan ga bañ indee reer ba ndab la ñu ne ko kii ndabal Baye Sëñ Jaw nee na daa fekkoon Cheikh Moussa suunu waaye daa jóg diju ne ne mën sur de euh, Sëñ Jaw maa koy tibbale sama bopp dégg naa tibb ba ba ndab la baax mu def ci la ci war def daal di sóonuwaat ba demee waa ji indi ndab la ah, seen réer bi tey mag yéen ko mag yéen noo koy bokk de seen réer bii mag yéen noo koy bokk. ndax wax jooju Cheikh Moustapha waxoon ci moom. Ah, Cheikh waa Baye Sa Ndiogou leen wax na ne liggéey gu doon liggéey fii ci bayti gii booba sàkket a xew. nee na kër gépp menn mbaam moo fi amoon Baye Sall moom ñu waxoon léegi moo ko moomoon nee na mesel la lañ daa faral ji gattax ga nee na sàkkatal nañ fii Cheikh Moustapha ay curi fii ci ci ci bayti yi nee na bañ koy tàmbali sax Cheikh Moustapha dafa ñëw taxaw daan ne ngeen ko tàmbalee nii maanaam muy ndeyjoor mu daal di taxaw Cheikh Moustapha taxam yàgg mu ne seen léegi bi di bàgg dina baax ci bayu bayu Ousmane ne ko àgg na ko àgg na ma noppi de mag Cheikh Moustapha daal di wëlbatiku kon mën nañ ne loolu ay liggéey yoo xam ne euh, waaye seen jëw liggéeyal na ko Cheikh Moustapha euh, doonte booba at yi bëriwut itam waaye liggéeyal na ko liggéeyal moom daal nga xam ne bayti gi ñu ko jëkk defar maanaam man ni ne bàyyi suñu ca la bokk mm. loolu daal xam nañ ko ceegoon ba xam dañ ci mën a dool leneen nit mm. waaw bu dee Serigne Cheikh moom itam ah, liggéeyal na ko liggéey yu bari yoo xam ne eh, am na ci loolu moom fekke nan ko bu bokk Serigne Cheikh liggéey am liggéey yoo xam ne nañ ko muy kër yu ko daa defaroo ci biir dëkk bii kër gu ñuy wax sëñ ma dem nga xam ne bokkoon na ci bëkk néegi sëriñ Cheikh yi nga xam ne ñoo ko daa taxawal yu bare bari mm-hmm. tam dëkkoon fii ci wetu sàq mi kooka moom ba ba maanaam sëriñ bay sëriñ Jaw liggéeyal ko këram ci ndigalu sëriñ ku ñuy bàyyi mërun xarabat moom itam ci lu nu teewee maanaam sëriñ Cheikh maanaam liggéeyal na ko kër mu liggéeyal ko ko mu àgg loolu yi suñ kanam la soxna Thian mi nga xam ne itam Baye Thierno Dieng chef moo ko yoroon kooku itam léegi Baye Sëñ Jaw liggéeyal na ko kër ci ndigalu sëriñ Cheikh Mbacke kon loola moom itam mm, fekk nañ ko teewe nañ ko ak yeneen ak yeneen ah, moom itam sëriñ Cheikh tegoon na ko foo xam ne eh, taalibe bu mu fonkoon la ndax dëkk bu baay sëriñ jaam rek sëriñ Cheikh Mbacke fekk na ko fa dem na bustaan dem na ngijaan dem na jewe dem na daarxaman kero bi muy ñëw jewe sax dañuy dañoo waxoon ne sëriñ Cheikh Mbacke ngeen da ngeen fi ñëw ñu ne ña ah, si kooku otoom du dox ci suuf de otoom du dox ci suuf am na ñoo xam si loolu la ñu waxoon. kon nag euh, nit ki gannaaw yow dëkk yi nga am yëpp sëb sëriñ fekk na la fa loolu defe naa fonkil mënu ko weesu. Mm-hmm. te dëkk bu mu am rek bu si bàyyi si njaw rek suñu Cheikh Mbacke fekk na ko fa. te booba suñu Cheikh xat na lool ba àgg si jot dina lool waaye teewut fenn fu am rek euh, maanaam fekk na ko Daara man sax moom dafa fanaan fa yendu fa door faa jógee yi des nag benn bu dafaa yendu rek sa ngoon mu gont. Mm-hmm. kon loolu itam mën nañ ne mm, jaar na diggam ak Cheikh. Serigne Cheikh Anta Diaw ci leeral yu am solo yi nga xamante ni laaye biire nga ñu ko ci diggante Cheikh Mouhamadul Moustapha ak jàmbaar ji nga xam ni mooy Baye Serigne Diaw Mansour liñ ciy dégge rek man ko cee jànge mooy pas-pasam ak ak taalibeem ak ak dogoom ak joxe léppam ca desewut dara loolu lañ ciy mën a jàngate ndax koo xa tol mel ni Serigne Cheikh Gaynde Fatma dayo baag jëmm ji ak xatadi ga ak xat ga képp koo xamante ne ñëw foo dëkk boo sànc ñëw na ca nekk ak yow fekk la fa yaakaar naa am na foo xamante ni toll wan nga ko fa waaye itam Cheikh Moustapha itam seere su am solo soosu nga xamante ni wax nga ko mu am seen diggante ñoom ñaar yaakaar naa ni loolu rek moom la taalibe bu nekk di sàkku ci sëriñam waaye itam sëriñ bu nekk itam bi mel ni bàyyi sëriñ jaw rek moom nga bëgg ca moom nga war a am kon ginnaaw bi itam dañuy jébbal kàddu gi nga xam ni moo di sëriñ Ahmadou jaw mii ci suñu loxo càmmooñ moom itam di kenn ci kër gi waaye itam di kenn ci njaboot gi moo ñuy waxal waa kër Baye Serigne jaw fi ñu toll ci wàccaay wi ak itam nan la ñuy waajalee bisub seex Mouhamadul Moustapha bi nga xam ne moom la indee woon seexul xaddim ci euh, dëkk bi waaye nag bañ soññee itam lay def jëmale ko ci taalibe yi sëriñ bi bisimilah. di nuyu bu baax Cheikh Ousmane Mbacké mi nga xamne mo moo comité organisation bi nga xamne ne ñoo yore liggéey bi ci yabal fi Serigne Moussa Diop ak andal andal ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm ñom taxaway bu rafet eh, di leen ci turu Serigne Cheikh Diaw Mansour mi nga xamne ne khalifa Cheikh Mansour Diaw di khalifa Baye Serigne Diaw Mansour di am mbégte ci kàddu Serigne Cheikh Anta yi nga xamne ne nako ci digënté Cheikh Mamadou Soufa ak Serigne Cheikh ak Baye Serigne Diaw di leen jaajëfal bu baax euh, kër Cheikh Mansour Diaw di kër Baye Serigne Diaw Mansour seen seen bàkk benn la seen jëmuwaay jenn la muy Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, ndigal lit lenn lañ fiy déglu mooy ndigalul Cheikh Mouhamadul Moustapha mooy li mu joxoon Baye Serigne Diaw Mansour mm-hmm. te Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke feddali woon ko Gaynde Fatma sëriñ Mbàkke Soxna Lo Mohamed feddali ko mu doon yitte ju sëriñ bi am ci sëriñ bi muy waxtu wu ne li muy bëgg mu nekk ca ba jot jërëjëfam mm-hmm. looloo waral màggal gi bi sëriñ bi jotee ndigal ci Cheikh Mouhamadou Moustapha jot ko ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moom Baye sëriñ Jaw Mansour mu doonoon ab taxawaayam doonoon ak bëggam mooy bis bi li ci seex Mouhamadou Moustapha dël ne sëriñ Touba wax na ko ci mboolem kuy murit mboolem kuy jullit suñ borom defal la ko loo defal defal la ko ca. Mm-hmm. loolu it la dénkoon dénk ko mboolem ak njabootam mooy bu weeru mu xaram teroo ñu tàmbali njàngum alxuraan mi def ko addee Serigne Touba. Mm-hmm. ak Cheikh Moustapha ak Serigne Cheikh mboolem njabootu Serigne Touba gi. ndax dafa digle woon ci bés bi ne sëriñ bi dafa wax ne nanu ko màggal nanu ko màggal ci sunna danu ko magal ci njàngu alquran ak waye Cheikh mustafa dafa tannon ay téré né nañ koy jàng ginnaaw alxuraan e, jës boog muwaahibu ak muxaddamaat ak mimiya nañ ci jang ay lim noné la ko bàyyi sëñ Jaw Mansour dan diglé ci bu weer wi téro dara ji nga xamné mo nek ci kër gi te Serigne Cheikh Anta e, yoré ko bu weer wi téro ñu tambali kamili ak mbollem fu dara nek ci bustan jaw ak Daaru Rahmaan ak fu dara nek rek mm. ñu nek ci liggéey daayira durus yi nga xamne ñom ñoom ñoo nekk ci dëkk bi it ak yeneen dëkk yi ñom itam ñu nekk ci liggéey durus ba ak njàngu alxuraan mi ba taxna ñun tàmbali nañ suñu magal ba wër wi téro ci njàngum alxuraan qasida ak salatu ala nabi nin koy waajalee it ci ginnaaw njàngu alxuraan qasida ak salatu ala nabi moy bernde ndax sëriñ bi dafa wax ne rogu fanaan Tuubaa ñu jéggel la mm-hmm. kon dañoo bëgg a bokk ci ñay berndeel roo ñi ndax yaakaar naa ku fexe ba bokk ci ñay bernde ru yi ñuy jégal am nga ndimbal te loolu ñu amee ko ci ndimbalul Baye Serigne Diaw Mansour ngir ndigal lum ñu joxoon ndax fonkoon na bis bi ba euh, waxtu wu dikkee mboolem fu taalibe nekk lim lay soññ mooy nga teew ci bis bi. Mhm. na ko ko na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha waxe woon sëñ Mor Jàndam na ko euh, euh, jënn yitte ju jar bañ a teew ci màggal gi amut nit waru koo am noo lee la Baye Serigne jëloon teg ci kanamam. Mhm. ne ko it bu fekkee ne da ngaa yor lenn rek bëgg ma koo jox te muy tolloog sa paas paase ko te ñëw ndax Serigne Touba roo yëfanaan Touba la soxla loole mooy yitte ji bàyyi Serigne Diaw Mansour amoon. yitte ji mooy waxtu màggal gi daan ñëw da daan ngir xam na ne bis bii la Serigne doon ñaan ngir mu nekk bis boo xam ne moo gën ci moom ndax euh, allahumma ij'alni xayra ayyaami yawma atqaaka Eh, suñ borom nag ma defal bis bi gën ci man mooy bis bi may daje ak yow bis boobu mooy bis bi nga xam ne moom la sëriñ bi ñaanoon sunu borom. Mm-hmm. mu doon sunu ndimbal ngir eh, ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla dogal ñu féetale ñu màggal gi ndax màggal gi ñaare dañuy wax màggalug Daaru Xuddoos mm-hmm. màggalug sëriñ Cheikh. Mm-hmm. ba tax na ndigal li ci sëriñ bi amoon mooy waxtu wu nekk ñu ñu ñu ñu ñu ñu teg sunu kanam ci ndigal li nga xam ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke joxe woon na ko. teg sunu kanam ci ndigal li nga xam ne. Euh, sëriñ Mbacke soxna loo Mouhamed joxe woon na ko mhm. muy ànd ak taalibe yi di jaamu yàlla te liggéey waaye waxtu wu ne it ñu xam ne màggal gii di màggalug Daaru Xudoos di màggal gu njëkk gi mooy màggalug sëriñ Touba ndax mooy bis bi Cheikh Mahamadou mustafa jëlee woon sëriñ Touba njaareem andi ko Touba te it mu doon li nga xamante ni ne mboolem njabootug Cheikh Mansour Diaw di mboolem njabootug Baye Sëñ Diaw Mansour mhm. seen yitte jëpp mooy lu rafetal bis bi ak lu ko jagal ci kër gi ak mbooleem gox bi euh, euh, koñ bi ñu dëkk ndax ni ñu koy waajalee ci njangu alcorane non lañ koy waajalee ci bernde mm-hmm. ci euh, bernde bu lepp lu dagan nak ci walu ay xéewal bu magal gi diké mboolem fu taalibe nekk àllarba ji di ñew lañuy ñuy organisation bi fi ci kër gi inshallah allah mm-hmm. ci walu dajale bagage yi ak indi xéewal yi nga xam mom lañuy la ñuy indi fii ci kër gi buñ ko indee ba bala ko kenn laal dano baxawon serigne bi da dan sas bay serigne Jaw Mansour ay xewal yu ñub fofé ci kër cheikh eh, eh, ci kër serigne bakki son loga mu doonoon ay ay ay ay ay gat yu takku ay ganar yu takku ay ay ay ciéré cere goy ciéré yoyé yit eh, serigne bi da koy dajale yobbu ko kër serigne bakki son Soxna Loo ba ko Cheikh Mouhamadou mustapha bakke doga doga doga ñew fi nak ñu tàmbali ci xéewal yi nga xam ne dañ koy xéewaloo ak njaboot gi nga xam ne ak taalibe yeeg bokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci kër gi. Mhm. noonee lañ koy màggalee bu ñu demee ba ci bisu màggal ga nag dañuy daal di tàmbaliwaat liggéey bi bu ñu xëyee huit heures tas daal di tas kaamil bi mbooloo mi di jàng tas jukki yi eh, séddale kurus yi ndax danoo sax dem ba xam nañ ne ñëpp mënuñoo maase jàng. waaye dañuy wecce ko ay kurus yu bari yoo xam ne ñiy def salaatu ala nabi ak ñiy def listixfaar dañ leen koy jox. nga xam ne amul kenn kuy toog ak loxoy nen amul. bu ñuy nekkee ci téere yi di jàng ñi nekk ci kurus yi di wér di def salaatu ala nabi ñee ña nga ca waañoo di defar bernde yi ñu defale gan ñi. Mm. ñii ñu ngi taxaw ci sàppe yi ngir lépp lu nit soxla rek ñu taxaw fa daal la koy jox. màggal ko ci màggalin woo xam ne moom la ko sëriñ bi soxlaa ndax ginnaaw sëriñ bi daa wax ne waxtu wu ngeen tàmbalee rek suñ borom yebal na ay malaayika yu jël si seen jëf ngir di xettali doomu aadama yi waaye waxtu wu ngeen tàmbalee it sëriñ bi jege na leen jege koo xamante ni ne kenn ku ci nekk li ngay ñaan mi ngi la cay fekk si di la ko defal kon na ngeen ci nekkee nekkin woo xam ne waxtu wu sëriñ bi dikkee du ngeen soppi seenu toogin kër Cheikh Mansour Diaw nag am nañ ndimbal ndax lu ñu sëriñ bi bett bett duñ soppi suñu toogin mm-hmm. amul kenn koo xam ne da ne xaaral ma ñëw doo gis sëñ bi mm-hmm. fa la sëñ bi fekk mën nga faa gisee moom waxtaan ak moom ci lam soxla lépp lu mu bëggee nga def ko foofa loola nag ndimbalul yàlla la ndax sax ci xaar ndigal ak sax ci nekk ci ndigal mm-hmm. mooy ndimbal li nga xam ne moom la sëriñ bi soxla kon sëriñ Cheikh Diaw nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax baax di leen xamal ne noonu lay waajee màggal gi de di jaajëfal bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo jël si liggéey bi eh, ci njëriñ sëriñ Moussa Diop di ko sant baax di ko gërëm di sant mboolem ñi nga xam ne nag ñoo fi teew waaye di woo ñëpp ci màggal gi nag di leen xamal ne mi ngi ci woo ñëpp képp koo xam ne ab taalibe nga képp koo xam ne ab jullit nga mi ngi lay woo ci màggaluk sëriñ Touba gi nga xam ne daa am ndiglul màggal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu yooyu nga xamante ni moo tukkee ci sëriñ Ahmadou Diaw na lu baree baree bari ci niñu ñu war a màggale waaye tam matale na sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha